mbokk ak xarit ci ñuy seetaan ci Sénégal TV dal leen jàmm ci xibaar bi nga xam ni dañ leen koy jox mu nekk xibaar boo xam ne dafa bees tàq ñu koy door a ci paquet ki nga xam ni moom la ñuy wooyee Layatoullah de Kaolack soo leen ko déggee kooku mooy Ahmed xalifa ñas coow bëri na ci moom fan yi ginnaaw bi nga xam ni mu ngi nekk en instance de divorce ak soxnaam si ni yooye Yaayu jaañ kenn ko ci nekk nar a dem yoonam waaye nag dañu wax ni ëttu. ahmed khalifa ñas dafa am buntu sarale bo xamni amna am na jongama buy dagu di genn tudd yaayu jaañ waye am na jongama buy dagu di dugg si tuddu roqaya ñang loolu nag soo ko déggee moy ahmed khalifa ñas tay ji di ajuma bu juróomi waxtu joté ci lañ koy may soxna bu bes set bi nga xam mo di roqaya ña dina ñew nak dal di sëy mu nek ko xamni dom la ci magam bi nga xamni ni moom la ñuy wooye cheikh ahmed tidan nekk na nag xew-xew boo xam ni ca dëgg-dëgg ca kaw Kaolack moom la ñuy waxtaanee moom la ñuy laam-laam mais mu mel ni nag ki nga xam mu di Ahmed Khalifa ñas bu fekkente nag li nga xam muy néegu sëyam nag amoon na yëngu-yëngu bu fa amoon waaye nag jamono bii nag noppi na nag pour am keneen ku mu fay dalal koo xam ni ca dëgg-dëgg dina ko jàmmal ñu àndandoo yàlla may leen njaboot ju barkeel ca teg ci loxoom.